bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu sëriñ Cerno ñëw ak sëriñ Cheikh Aziz ak sëriñ Moustapha ñi ngi jël nuyoo bu sell di ko teg seen loxo ngeen jot ñu ko mbooleem bokk yi fi teew yépp jot ñu ko sëriñ Ahmadou Maxtaar jot ñu ko mboolem yoonu murit waaye surtout dañu ko jottaleel kii di Cheikh Mouhamadou Mountakha nga xam ne wax ji ci moom lañ koy tàmbale ndax li fi am lépp booba ba tey jëmm ma sëñ bi wax na ko léegi bi muy ubbi muy sëñ waaye cant gi yi nga xam ne moom lañ ko ameel dadul doy moo tax ku dikk rek faw mu jaaraat ji ndax li mu jëf ci bis bi ni mu jàppee bis bi ak fi nga xam ne fu lu yóbbu bis bi ndax tey ji centenaire bi bu ko mbooleem senegal képp jàppee ni ñu ko jàppee gannaaw yàlla jëmm ma tax te loolu la xam nañu ko kon sëñ Thierno ñu ngi lay yóbbante ci moom ay cant yoo xam ne boo demee man nga ñu caa wuutu ndax fi ñu taxaw man nga fay taxaw di wax ci suñu place ndax Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou Bachir du ñaari jëmm jenn jëmm lañu ci booleeg sëriñ Touba loolee di rafet ba nëgë ni kon dal na xam ne fii kërama moo yili fépp moomam lépp waaye ni moome fii ni mu ko yilifee ak ni moome ñi fi nekk duñ nangu mu gën koo moomee genn kër groupe gi loolu ñun ñoo ko volontaire suñu bopp kon ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu sëriñ Moustapha Sare di nuyu monsieur le gouverneur di nuyu le préfet le sous-préfet di nuyu le directeur bi ngeen àndal ak le conseil technique Serigne Samba Diaw nga xam ne moom ci diwaan bi la bokk ak mbooleem délégation bi yépp di nuyuwaale aussi ñi leen di jàppale ci dëkk bi te ànd ak yéen di suñu ay wëlëre mu di biram mu di euh, suñu rakki bopp di suñu xaritam sëñ Assane Mbacke gis naa ko ci délégation bi ak Abdou jaxate ñu ngi leen di nuyu di am mbégte ci di leen dalal fii nga xam ne manees na ne miin ngeen ko ndax kër gi foog naa ne si kilifa yële yabal fanaan nañ fi budul benn du ñaar ci sëriñ Ahmadou Maxtaar kon day mel ne nguur boolewu leen politique boolewu leen muy di premier ministre ak président la république kon bu amee yow ñu jël la yabalaat la loolu day defaat meneen mbégte ci ñun ndax daayira yi ñuy def ñu ne yow ñoo ko bokk fu ñuy tànt tànt nga fa fu ñuy kuréel kuréel nga fa gépp kër Cheikh Moustapha guñ ne fekk la fa rawatina kër Serigne Abdou Fatah kon bu ñu la yebalee loolu day mel ne benn sag la boo xam ne defal nañ ko waa dara Xurus ndax cër boo am day mel ne cëru kër gi la kon ñu ngi lay yóbbante ci ñoom ay cant ak ay nuyoo dina xamal ne seen warteef ci bis bi matal nañ ko di leen xamal ne aussi gouverneur ni nga xam ne noonu la waroon na saytoo mbooleem lu aj ci wàllu organisation bi ak CRD bi koy jàppale nañ ko waree defe nañ ko noona kon moom itam ñu ngi koy sant ñu ngi koy ñu koy gërëm di la di la biral loolu kon dañu leen di ñaanal rek ci li nga xamante ni mooy li nga wax ne yéen a koy sàkku ci sëriñ bi ñu xam ne sëriñ bi moom ñaan yooyu ci la ko ci la ko fekk ndax day mel ne loolu mooy li mu warlonte ak Sénégal mooy di ñaanal réew mi di ñaanal taalibe yi ndax ñi ne ci réew mi yépp moom moo leen jaboote kon njaboot googu bu ñu amee jàmm rek moom day daal di am jàmm ndax kenn du ko kalaame kenn du ko sonal kon loolu ñaan googu day mel ne lu mu leen ñaanal boppam la ko boppam la ko defal di sant bu baax itam monsieur le maire Abdou Ka wax na ko léegi man ak moom bu ñu dajee ñaaree su ma waxee sax du nga wax loolu sëriñ si Abdou Lahad moo ñu boole moom xam na loolu bu baax a baax te jàpp na ko may itam noonu laa ko jàppee waaye sëñ laat sa taxawaay dafa rafet ba kàddu bu ñu la jox fii ak cër bu ñu la fi jox na nga xam ne cër la boo mérité cër la boo xam ne yow yaa ko liggéey ndax yow ak sëriñ Ousmane ngeen doon liggéey ci biir organisation bi waaye lépp loo waroon def rek wala lépp loo digge woon def nga ko ba def ko no rawee sax ñoom nañ ko séntoo woon na nga xam ne kàddu yi bi ñu toogee si Ousmane fàttaliwaat na ko kon nanga xam ne ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm gis taxaw ba rafet yow ak toute la municipalité de Touba ñi nga xamante ne bii ñoom ñoo lay jàppale. sëñ Cheikh ju ñu ne ko itam kàddu cant gi nga xam ne jëm na ci waa Hizbut Tarqiyyah sëriñ bi bi mu leen joxee ndigal muy sëñ Youssou Diop ak mbooleem ñi ma àndal ñëpp lépp lu ñu doon def njaareem gis nga nañ ko taxawee biñ nekkee Touba ñu ne ñoom ñoo ko ànd bañ nekkee Dakar ñu ne ñoom ñoo ko ànd seen télévision bi dañ ko jël mettre ko à disposition ba lépp loo xam ne aajo woon nañ ko wala yitte woon nañ ko nu ñu ko bëggee lañ ko doon defee kon ñoom itam sëriñ mi ngi leen sant sëriñ bi mi ngi leen di mi ngi leen di gërëm temps bi dafa xat cant yu bari sëñ Cheikh ñëw na ci muy cant yi nga xam ne amal nañ ko mbooleem yoonu murid ki seen taxawaay bu rafet muy cant yi nga xam ne amal nañ ko toute la communauté musulmane muy mbooleem turux yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal a seen bu rafet cant yi nga xam ne amal nañ ko mbooleem ñi nga xam ne ñooy association islamique yi ndax seen taxawaay bu rafet amal ko ñi nga xam ne aussi ñooy ambas ñooy euh, ñooy ambassades yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi amal ko même lépp parti politique yi nga xam ne ñu ngi ci biir Sénégal ci keroog Masalik kenn ci ñoom desul amal ko aussi ñi nga xamante ne bii ñooy kilifa aada yi nekk ci réew mi ki seen taxawaay bu rafet du ma ñëwaat sëñ Cheikh dikk na ci te loolu kon day daal di nekk rek genn genn genn cant cant yi nga xam ne aussi mooy canti waa daayira yi nga xam ne ñoo ne ci biir Daaru Xudoos sëriñ Cheikh ñëw na ci kon du ci del siwaat xanaa di ci berlaan loxo rek kii nii parce fi bi ñu toogee léegi la la la sëñ Matar Ndiaye ñëw dañu ko wax taxaw ba rafet boo xam ne si Moussa Mohamed taxaw na ko ci li nga xam ne way juróom daana ko fii ci biir kër gi mu ne lépp lu mu daan def rek sànni rek tax na ba mu yokk ko taxawaayu way juróom di sëriñ Cheikh Madina taxawaayu sëriñ Cheikh képp koo xamante ni mooy kër sëriñ Modou Moussa yi fi nekk si Abdourahmane bàyyiwuñu kenn bu ñu limee dañuy dañuy dañuy jum seen taxawaay rafet na ñu ngi leen sant di leen gërëm ci turu sëriñ Ahmadou Mbacké sëriñ Ahmadou Makhtar di dikk rek ci ay kàddu gàtt ci nga xam ne moo waral bis bi mu di Cheikh Mouhamadou Moustapha bala maa ñëw cant yi nga xam ne moom lañuy ñuy jagleel presse bi dama koy tënk ci ñetti ñetti poñ sëñ Modou Moustapha doomu sëriñ Tuubaa la woon donte moom daawut wax loolu loolu dinaa ci dikkaat léegi ndax turu sëriñ bi dafa rëyoon ci moom ba bu mu bëggee wax sëriñ bi danaan ki ñuy tudd di ñu tudd daawul jaar sax ci tur wi loolu ci taalibi gi lay lay dugg waaye nekkoon ab sufiyanke dëgg nekkoon ab jàngkat nekkoon ab jàngalekat nekkoon nituk science nekkoon boroom xam-xam lii responsabilité di bari bari bari bari bari bari bari mooy jiite mooy tëralal gone yi moo leen di jàngal fànn googu duma ci sori ndax sëriñ Falilu dafa taxaw fii kenn ci njabootu sëriñ Tuubaa gu jigéen gi bañ demee ba tollu ci seere bu leen kii de awma lenn lu may seere ci moom lu dul doomi sëriñ Tuubaa la kon loolu foog naa ne taxawaay bu mu ci am rek taxawaay bu mu mënta ñàkk am la ndax sëriñ tubaab moo leen binde noonu beneen bi may dikk mooy sëñ Moustapha akuk taalibe loolu bari na loo xam ne xam nañ ko ci wax nañ ko waxati ko am na loo xam ne man soxna may moom ko nett si ci làmmiñam mu ne bi nga xam ne sëriñ bi jóge na fi ñoom ñu nekk njaareem di ay tuut tànk moom ak soxna ami Cheikh nee na bu ñu mosaan ñëw ki sëñ bi du du jëfandiku te ñoom dikkuñu bu ñu dikkee ñoom la njëkk a jox ñu jëfandiku ba noppi bu ñu jëfandikoo ba noppi nee na day sol mu weex tal lay sol turki dara wala bax lay nekk neen da koy yëkkati jox leen ne leen na ngeen fomp te warlu leen ma ma nekk seen taalibe Baye. neen ñoom bu ñu génnee di rey naa ñun day ñoo ko baaxub taalibe nga xam dañuy jëfandikoo ba noppi moom mosoo soog a jëfandikoo foog naa kon ak taalibe foofu la mën a yem soxla si boppam nett nem nee na ma sëñ Moodu moo ne sëñ Tuubaa mos na may sakkatloo nee na may sakkat ba di jeex nee na rawi maxtu yi nga xam ne moom la soloon moom la dindi moom la dindi àggalee ko sakkat wa kon kooku dafa liggéeyal sëriñ Tuubaa ak nekkam te fépp boo xamante bii nit yóbbu na fa kaamil kaamil sëñ Modou Moussa ma nga fa fépp boo xamante ne bii nit bay na ñëw indi ko sëriñ si sëñ Modou saa def na la kon taalibe googu foog naa ne li nga xamante ne bii ni mu ñu ko jàngale ak ni nga xam noonu ki tënk woon dafa nekk loo xam ne lu baree baree bari moom moo ko moom moo ko ko may nekkoon nit koo xam ne ci wàllu organisation ak jiite da cee da cee da cee nax da cee da cee kawe woon ay jikko bu ñu jëlee rek am na loo xam ne sëñ bi moo ko fi indi muy lu mel ne sas yi sëñ Fallou yaa ngi may dégg yaa ngi borom xam-xam yi ci kaw bi sëñ bi bi muy bëgg tabax jumaa yi mu sase nit ak juróom-ñett loolu la nekk indi benn forme d'autonomisation boo xamante ne bii lu ñuy bëgg ñun ñoo koy defal suñu bopp te duñ tàllal kenn suñu loxo loolu sëriñ mi jàngal ñu ko bi sëriñ bi nelawee Cheikh Moustapha seq ci beneen jéego ndax loolu mooy li am solo. da ngay fekk lu baax nga dëgëral fondation ba jëlaat birig tegaat ca kaw mu jëm ca kanam ana lu ci yokku da ci yokkaat tool àllarba yi kon sas bi dafay nekk mu ñu indiwaat tool àllarba nga xam ne fépp foo xam ni nekk na fa ci biir réew mi di nga mën a bay la ngay bay di ñëw ñu koy def ci jumaa ji nekk ki nga xam ne moo njëkk a sanc ay dëkk yoo xam ne liggéey dong ngir jumaa ji moom moo ko tax a jóg loolu aussi dugg ci modèle économique bi nga xam ne moom la doon proposé nga xam ne lépp lu ñu aajowoo rek nañ ko defal suñu bopp duñu tàll suñu loxo ab naar duñu tàll suñu loxo ab tubaab lépp ñun ñoo koy defar suñu te mën nga ni yoonu mu murit di di dox ci loola yemu ca la ca gën a rëy muy lu mel ne raay bi leadership bi mu ne foofu dajale ay junni nit ñu liggéey raay bi te sax suñu Moussa Abdou Khadir wax na ko raay bi gàllankoor la woon obstacle la woon pour jumaa ji ba a taxaw ñu ne ko faw nga taxawal raay bi ngeen indi jumaa ji moo tax raay bi bu ñu calculer ko jumaa ji il faut ñu ñu dugal ko ci biir ndax bu ñu doon jumaa ji raay bi duñ ko duñ ko defar kon aussi dafay logique li sëñ Moustapha wax ne Cheikh Moustapha daf ne ba raay bu noppee mu ne tey jii mel na ne jumaa ji noppi na ndax ci la bokkoon loolu na mu ko defee itam ba dugal ci ñàqu murid yëpp kenn ku nekk def ca loolu nekk beneen jàngat boo xam ne tey jii mu ñuy présenté benn modèle boo xamante ne bi ñun ñëpp réew mi sax lay wax yéen ñi ko jiite yàlla na yàlla jàppale ci loolu mën nañ cee sukkandiku ba sukkandiku ci suñu kattan sukkandiku ci suñu man-man sukkandiku ci suñu doole ba li nga xam ne moom la ñu bëgg suñu boroom defal ñu ko ndax yoonu murid bi ko def jig na ko ndax tey jii kenn ku ne gis na Tuubaa ni mu mel te boo duggee ci biir dëkk bi ba kenn nga koy génn dërëmu kenn ku taalib Serigne Touba nekku fi ba tey Touba nekk le premier département le département Mbacké du Sénégal waaye te dëkku Touba nekk deuxième capital économique du Sénégal te loolu ñax ñàkku taalibe yi rek moom moo ko moom moo ko sabab kon beneen bi moo di ne ni nga xam ne noonu la sampe yoon wi modèle d'organisation bi loolu itam kenn ku ne gis na mag nett nee na ma ku mës a jóge ci aw tund dikk boo dikkee romb ay kilifa boo dikkee danaa na ana sañ diw ana sañ diw nga ne ko ña nga fa booy dellu loo ko joxoon da jël te doon joxaat la ko ne la boo demee na nga jaar ci ñoom nga nga siyaareel ma leen nga joxoo ma leen lii message bi la muy tekki mooy bu ëllëgee bu leen romb di ñëw ci man noonu la sëñ Modou sampe woon ñëpp noonu la defoon ba kenn ku nekk fépp foo xam ne Sëriñ Tuubaa defoon na defoon na fa dara mu gën a dëgëral mu gën a dëgëral loola kon sëriñ Modou Moustapha day nekk koo xamante ne bii tey jii kenn mënu ko fay barki dem nee naa dëkk bi nu mu mel ak képp ku fi nekk ku fi jariñu ku fi dëkk ameel nga njukkal Cheikh Mouhamadou Moustapha ndax bu indi wutoon Serigne tubaa kenn si ñun du toog fii tey di xalaat naa maa ngi dëkk tubaa wala ngay tiitaroo tubaa fu sëñ bi demoon rek ñun ñëpp foofa lañ koy fekk kon tey ñëpp noo xam ne Touba noonu la mel jëmmi Cheikh Mouhamadou Moustapha moo tax ndax moo fi indi Serigne Touba ba li nga xam ne moo ngi topp ginnaaw bi lépp man cee man cee topp kon dey mel ne ñun ñëpp amel nañ ko njukkal loo xamante ne bii ab liggéeyam bu rëy moom moo ko sabab loolu nag ci centenaire bi feeñal nañ ko ci ndax bis bu njëkk ba moom lañ ko jagleel def ci ay waxtaan yu kawe waxtaan yu rëy ba jàpp naa ne ci boobu ak bisi ca topp ak thème yi ñu fi waxtaane buñ ci sukkandikoo foog naa ne ci téeméer at yii ñëw nañu jàpp ne am nañu loo xam ne mën nañoo niital sunu kanam ba fa nu bëgg a dem ñu dem fa te foofu ñu war a jëmitam nag ñu bañ a sëriñ bi lépp tënkoon na ko ci waxtaanu fukki fan ya ak juróom-benn loolu itam yeesalaat nañ ko ci centenaire bi génne war nañ ko wane wan nañ ko dégg naa fi sax ñu wax tradition waaye bind nañ ko ci wolof bind ko ci français kon day mel ne yeneen langue yi mooy des ndax loolu waxtu wu nekk moo la war a tekk suñu kanam ndax suñu tubaakat loolu rek nag mooy li mu bëgg ci ñun weesu wut xam li ñu war di ko jëfe xam li ñu tere. ñu di ko maytu lépp lu dëpp ak loola mën a ci ànd lépp lu dëpp ak loola ak nu mu mën a mel ne njàpp ne da cee joox waaye nekkul loo xam ne ci la bokk kon li may tëjee moo di sëñ Cheikh Aziz ñi ngi lay sant dama koy baamuwaat di la di la gërëm ci sa taxawaay bu rafet ñun ñëpp ni nga xam ne doon nga jiitee yëf yi ba suñu borom may ñu ci ndam li nga xam ne moom lañ ci may te nekku suñu ndam ndamul mbooleem lislaam la ndax li ñu def ci fan yii foog naa ne lislaam rek la yëkkëti waaye di beral ak cant loolu aussi di la ko biral di ko biral sëñ Ahmadou Maxtaar ak mboolem kilifa yi sëñ Moussa mi la yóbbal loolu ki sëñ Ahmad ak cant ci sëriñ Ousmane moom itam ci taxawaayam boo xam ne taxawaayam bu rafet la ci coordination ak ci cawarteem ak ci pas-pasam même kaddu gi may wax du sama kaddu parce que man aw ma fi kaddu daa doxul maa fi gën a tuuti kaddoom la woon moo ne ma Cheikh Abdou jox naa la sama kàddu demal nga wax te néew ma waxal lii wala waxal lii wala waxal laa kon ak baax foog naa foofu la mën a yem donc kon sëñ Ousmane tam ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñi ngi lay gërëm di la xamal ne mboolem njaboot gi takkuwaat nañu tënku fet di seen laxasaay toppaat ki sa ginnaaw ñu fas yéene ànd liggéeyal ki nga xamante ne mooy suñu jur yu fi nekk ak sëriñ Touba te loolu lépp itam day delluwaat ci ki toolu sëriñ bi kon loolu itam sëñ bi ñi koy euh, ñu ngi la koy biir xam naa sax bëgg ñu lay tudd keroog waxoon naa ko waaye nag dafa munta dafa munta ñàkk ndax ndax la Cheikh Abdoul Ahad waxoon rek di liggéeyal sëriñ Touba ba say morom raw la kenn mësu koo gis moo tax képp ku yëkkati sëñ bi di yëkkati aw turam faw sëñ bi yëkkati la nga bëgg ko la yëkkati nga bañ nga nga nga nga bañ sa tur ji bi tam faw mu faw mu jub li ñu daanee nag mooy dara ak cant tout la presse seen taxawaay rafet na di ko tàmbale ci RTS ak Soleil APS TFM Al Lamp ak euh, Touba TV As-Samadiyya nga xam ne suñu wayjun moo ko moom moom itam ak njabootam ñu ngi ni toog mu ne Cheikh Abdou Samad te am ci yëf yi taxawaay boo xam ne taxawaay bu bu rafet la bëgguma lim ndax su ma limee man na maa jum wala ma fàtte kenn waaye mbooleem presse bi muy presse écrite bi di télévision yi di ñi nga xamante ni mooy rajo yi amul kenn koo xam ne bis bi am na fu ñu bëggoon nga féete fa te féete woo foofu kon ñu ngi leen sant yéen ñëpp ñu ngi leen di gërëm yéen ñëpp di leen xamal ne ni ngeen jàpp ne di ngeen jàppe comme ay partenaires yoo xam ne dañu lang ak yéen ci liggéey bi ñuy def ngir wasaare ak tasaare li nga xam ne mooy ñàggalem Serigne Touba te loolu foog naa ne amu ci kenn benn partenaire bu leen gën a mieux placé pour que li nga xam ne moom lañ bëgg mu tasaaroo ci àdduna si ngeen tasaare ko kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh